boo leen bëggee am mbooleem vidéo yi bàyyeekoo fii ci Istikhama TV da ngeen di bés fu bind abone bu leen fàtte bés fu ñu def cloche bi foo leen mën ne ci àdduna bi ngir ngeen mën a am mbooleem vidéo yi fi bàyyikoo rajim bismillahi rahmani rahim barke Maamoor Jaara borom saam bokki jullit yi bokk taalibe yi maa ngi leen du nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam ak fu mën a nekk kàddu yi ma yëkkati ne kàddu la yoo xam ne yii li ko tax a jóg moo di liggéeyee borom saam bii Mamor Jaara muy jumaam ji nga xam ne néegab yàlla la moo waral kàddu yee jóg kàddu yi nag mën naa guddal mën naa gudd mën naa gàtt Euh, ñu ngi sant mboolem ñi ci jàpp ba mu agsi fi mu agsi ah di liggéey boo xam ne woyof na waaye diis na kon nag bëgg na ñëpp jàpp ci kenn ku ci nekk noo ci mën a jàppe nga jàppe ko ci waaw koo xam ne kii dal mbokkam jullit nga wala ngay mbokkam taalibe wala ngay dëkkandoo wala <coughs> nu bokk réew mi ak noo mën a dem rek ñu ngi la ci ñu ngi la ci woo ndax liggéeyub suñu liggéeyub yàlla la anal masaajida lillaahi wala tad'uu ma'a llaahi ahadaa loola moo tax ni ñëpp ci lañ bokk man mii di wax nag soxlawuma dara bëgguma dara lu may liggéey bii rek mooy sama yi tey àddina mooy sama lépp ci laay ci laay ci laay yendu bu guddee ci laay xalaat ci fanaan ci xalaat kon nag maa ngi ci woo ñëpp te fas yéene nag man ci sama jëmmi bopp maa ngi ci tey ba ëllëg képp ku dikk danga ma ci fekk ko demet bàyyi ma ci bu soobee yàlla foofu laa ci yem wax ji nag jeexut waaye nag la ci des dafa am ñoo ko bàyyi ñoo xam na ñii ñoo koy àggale nga xam ne nuñ ko àggalee nuñ ko waxee rek noonu la demee nuñ ko waxee rek nuñ ko waxee rek noona noona maa maa ko ni bëggoon a waxe waaye rek ñoom laa ko féetale ñu ñu leeral leen ko bu baax a baax lu ci xawal leen ndam ñu leeral leen ko luñ lu ci xaw a des ñu gën koo gën koo jottali. ana ban jullit mbaa taalibe moo xemmemul ngërëm ya rëy ak pay ya nekk ca liggéeyal Mammoor Jaara borom saam magi mag koo xam ni képp ku ko jëfal am ñeenti pay dañoo wara farlu te gaaw ci jëfal ko rawatina mu jëm ca la mu gëna bëgg muy néegub yàlla sunu boroom binduñu lu ngir ñu jaamu ko jaamu yàlla nag ja ca gën mooy ca néegub yàlla rawatina nag muy néeg boo xamante ni kanu koy defal jaam la bu suñu boroom gërëm lool te nangul ko lool wala yasalu xamimun xamiman yubassaruunahum yawaddu almujrimu law yaftadi min adaabi yawmaidin bi baniih sunu borom tabaaraka wa taala mi nga xam ne moo nu xéewale xéewal gu tedd gu màgg gi te sant du Amadu Bamba Xaadimu Rasuul mi nga xam ne moo nu def sunu jëwrin muy Seex Muhammadu Jaara muy sunu bunt ci Sëriñ Tuubaa mu am loo xam ne nag dañ koo bëgg a leeral ci ndigal loo xam ne Sëriñ Abdullahi Mbàkke xalifa maam borom saam moo ko joxe ci wàllu liggéey bi nga xam ne mu ngi koy liggéeyalu ci jumaa ji nga xam ne moom la naanal Cheikh du Diarra liggéey bi nag am na ab diir boo xam ne kenn déggu ci kàddoom kenn déggu ci lenn loo xam ne yëkkati na ko ngir mu jaarale ko ci kenn waaye nag dafa jot fim ne mu am kàddu yoo xam ne jotaloon na ko ba tàmbale woon ko joxe ci ndigal biñ duggee ci biir léegi mu jox nu kàddu yooyu ñu war koo jotal. allahu góor yàlla piir nitu yàlla dëgg màng bépp garaat ak martaba kenn xamul kemam fii ak fa ñu jëm di magi mag raw ñépp te jàngal ñi fi raw doy na ci firnde Cheikh Mouhamadul Fadel Mbacke. ci biir loolu mu wut ay boroomi xam-xam lu mel ni ingénieur am ak architecture am ñu defal ko offre technique bi ci kaw loolu bu ñu xaymaa jumaa ji li nga xam ne jàpp nañ ne mooy liggéey ba mu méngoog ni mu ko bëggee ak ni ko njaboot gi bëggee loola dem na ci un milliard cinq cent millions. yitteem kawee dëgg dëgg dëgg rek moo mën a moo mën a soo soobu lu mel nii. Euh, boo xoolee ci yoonu murit fii ñu toll nii ci liggéey yi gën a mag la bokk ndaxte liggéey boo xam ne nii mën naa déplacer milliard euh, xëy na euh, duñ ci duñ ci lib si euh, jamono ji ci jamono ji ñett ba ñeent. sëñ bi moom danay genn bëgg laa am muy jumaa ji. kera ba mu ko léegi di waxaatu fi kenn gëneen bëgg la bëgg day jaadu ci dongo muy fàttaliku sëriñam te di ko yót àllarba liggéey bi cosaan la àllarba la job ab mbindeef di aji sant delloo njukkal ka ko defaluk mbaax te ku la jàngalu araf amoo fayam àllarba ji dib tool bopp sëriñ abdu ma féeteeg yàlla mi buur soob jullit ñépp ngir ñu buur jëm ci lu baax buur jëm ci yàlla mi suñu boroom waaw liggéey bi nag bi mu tegee ci suñu loxo yàggagut yàgg na ndax fin 2018 la biñ ko tàmbalee it fekk nañ sëñ bi jànkonte ceeg jafe-jafe yu nekk ba suñu borom indi ñu fi yàlla suñu borom di ñu taw féexal boobaak léegi muy am tànki kanam ndax sëñ bi ba ñuy door a ñëw rek wax jëm ñu waxoon boobu ba léegi wax jooju soppikuwut ndax lim ñuy wax mooy na yaatu na dëgër na taaru yaatu gi moom fekk nañ mu yaatu ndax fekk nañ jëmmi tabax bi taxaw ba pare nga xam ne ñun suñ liggéey mi ngi commencé ci sooroor yi soroor yi nag war a dem kaw loolu it yàgg na ko wax noonu mu koy waxee naan na soror yu xuppe loolu it ñi ngi ci fas ci yéenee def it suñ kemt lay kàttan ba mu am ci li mu bëgg ndax ñu dase ceeg ngërëmal sëriñ Touba sëñ Abibu mii nag la ñu booleel mooy jëwrin ji ak sëñ Moor ñoom ak sëñ Baara sëñ Seex gaawan sëñ bi lim ñu wax mooy liggéey bi mi ngi aw yoon mi ngi baax te bu awul woon yoon it dees na ko fi wax ndax nit ñi kenn teewu leen a wax xelam dal na fama minkum min ahadin anhu xaajizin wa la tadkiratun lilmuttaqin wa inna la nalamu anna minkum mukazibin wa innahu xëy na sax fekkoon nañ jumaa ji mu am ay plan euh, bañ tàmbale woon ba étape yu bëri doxoon fi mais ñun biñ ñëwee euh, ak jafe-jafe yiñ fi fekkoon suñ premier suñ liggéey fi mu tàmbalee mooy jéem a redresser situation bi jéem a xool organiser waat liggéey bi jéem a xool euh, nan lañ koy tax euh, tàmbaliwaate ndax dafa taxaw lu yàgg ak ay jafe-jafe yu bëri yoo xam ne ci ñi ko doon liggéey ak ak doxalin bi bi sëñ bi jëlee nag liggéey bi teg ko ci kuréel bi ñu ne nañ redressé waat ut équipe yu bees ci kaw loolu lañ recruter euh, maçon bu bees Euh, constituer benn groupe boo xam ne ñun ñooy yor euh, pilotage bi ak euh, suivi technique bi biñ ñëwee nag xam naa dinañ ci delsi sëñ Diop dina delsi ci détails yi fekk nañ biir gi am luñ fi jotoon a def façade bi yooyu mais yu ci bëri sax xam naa dinañ ci delsiwaat mais ñun dañu jël effort yëpp concentré ko ci soroor yi depuis biñ tàmbaliwaatee liggéey bi ñeenti soroor yi wax dëgg yàlla am ci lañ nekk ba yàlla euh, yaakaar naa image yi dina wane ne am na avancement boo xam ne euh, te dal na xel te it euh, njuumte yiñ ca fekkoon ba nga xam ne sax am na yenn yoo xam dañ ko toj pour reprendre ko yaakaar naa yooyu yëpp ñu ngi koy fàtte njuumte yu bëri yi doon am muy waral ay toj ak yooyu yëpp saytu bi ñu koy saytu yàlla dimbali nañu ba fi mu ngi jaar yoon xanaa ñu remercier rek santaat maçon bi nga xam ne moo fi ci nekk pour engagement parce que maçon euh, dafa am contrat ak moom liggéey moo ñu boole mais nit ki bu nekkee taalibe xam ne li li ñu war moom da koo ci war dina dina yokku euh, effort am te daanaka lépp ñu ngi koy ànd yàlla dogal na rafet na ba lépp luñ ci saytu rek ba ne nii la yaakaar naa moom mu ngi ciy dimbali sëñ Diop aussi ni ma ko waxee woon rek euh, mu ngi ñuy jàppale parce que détail plan yi Sooror dafa xaw a complexe surtout architecture bi mais chaque fois buñ soxlaa benn détail architectural benn loo xam ne mooy leeral rek moom day nekk suñ disposition pour gën a yombalal euh, loolu pour mu am matériel suñ toll moom euh, yàlla dimbali nañu ci fuñ ci toll rek wax dëgg yàlla am luñ luñ soxla ci matériel daa mel ne loolu moom euh, dañ dem ba jiituñu sax te ñi ngi sant yàlla aussi euh, ci côté boobu parce que nañ yéene lépp loo xam ne mooy seen seen i jot yéen kilifa yi rek euh, di ngeen gis loo xam ne moom moo koy kawe incha allah rek bu soob yàlla xañ la danoo nekk ci programme Soral te Soral day liggéey bu kaw euh, mënut a gaaw 100 pour cent na matériel bi mat na euh, lépp ngi ñëw lu soxla ngi ñëw vraiment dara manqué wul mais liggéey bu kaw bi mënut a gaaw 100 pour cent loolu rek moo tax mu xaw a dibante ni waaye li ñu soxla lépp ngi ñëw li ñu ngi sant bu baax te di leen ci sant bu baax a baax a baax di wax ne daal lépp loo xam ne lu mu war la wala loo xam ne euh, luñ ci war a def la ak luñ ci war a nekk lépp dañ ko ci matale incha allah rek bu soobee yàlla fas nañ yéene comme ni ñu ko tàmbalee rek ndax gis ngeen ne bi ñu ñëwee dañoo fekkan sóora di xam tuuti ay jafe-jafe ñu jël ay martu ay matuwaay wàcce ko tàmbale waat en charge ci nga xam ne mooy plan architecture bi di mu designé euh, ci leen di continuer bo fi mu toll nii moom ngeen di gis noonu fi mu toll noonee ci noonu rek lañuy continuer lépp loo xam ne euh, lu dëng la wala loo xam ne lu war a saytu la dinañ ko saytu ingénieur bi ak architecture bi ni ngi fi te lu lu jox rek ci këyit incha allah rabbi dinañ ko def ni nga xam ne noonu la war a noonu noonu la war a mën a mel ak noonu la mel ci këyit bi noonu rek dañ koy melal bu soobee yàlla lépp loo xam ne tamit ndax euh, ñun ngeen fa bàyyi xañ sax léeg-léeg damay toog ba ci yàgg sax ma xaw a euh, tiit tuuti lépp euh, loo xam ne tamit matériel yi nga xam ne dañ koy di ko teg suñu loxo incha allah rabbi da ngeen xam ne na ci seen xel dal te lépp lu teg suñu loxo ci loxo rek ci suñu jumaa ji leen koy defal lu baax yombul te yàlla képp ku koy lebal la gën nga koy jox liggéey bi yitteeg pas-pas ak pastéef gu mat moo koy doxal ñu commencé ko depuis 2011 ñun ñu ngi ñëw en mille 2018 autrement dit bi ñëw fekk nañ projet bi ëpp jàll na mais malheureusement sëñ bi bi mu jëlee matuwaay yëpp out euh, architecte yu woo defar projet bi à l'occurrence monsieur Mbaye seen ak euh, Serif Diatara vraiment ñu élaborer projet bu rafet ah, alaaj Abdou nekkoon na fi nag mu amoon suivi moom ay jamono yoo xam ne nag Alaaji Abdou nekkatu fi woon ah projet bi mujj am ay problème pilotage problème suivi ah équipe bi fi nekkoon nag daanaka li ñu defoon dafa conforme woon ak projet bi moo tax bi ñu ñëwaatee ñu xool ñu ne daal projet bi daal ñun lépp comme que c'est bien élaboré. li ñuy def rek mooy fexe ba ni ñu ko dessiné ci plan ñu traduire ko ci ci ci chantier bi wala bu ko defee ñu def moo ci loolu lañ xalaat ne def ko ñetti phase phase bu njëkk bi mooy minaret yi ñeenti minaret parce que ñeenti minaret la am ñaar ci kanam ci soow bi. yu nekk à hauteur de trente quatre quarante quatre mètres ak ñaar ci penk bi yu nekk trente trois mètres lañ fa doon def nag départ bi wuute nag la fa li nekk ci plan yi moo tax ñu njëkk def ci premier volet ba mooy ñu fexe wàccee la fa nekkoon reprendre ko ah yàlla ngi ciy defal tawfeex na ba ba léegi ku gis euh, ni mu mel ak ni mu nekk ci plan bi ñoo yem ñu ngi conforme léegi nag euh, comme que dañoo waxoon dañ ko def euh, ñetti phase première phase moo nekkoon. ñu concentré en premier lieu ci minaare yi bu ñu paree ci minaare yi ñu ñëw ci extérieur bi façade extérieure bi fexe tamit mu conforme ak plan yi bu fi jógee tamit mu des suñu troisième phase bi ñu concentré ko ci intérieur bi waaw actuellement nag euh, yàlla ngi defal tawféex ba euh, façade minaare yi moom daanaka euh, mën nañ ne quatre-vingt pour cent wala soixante-dix pour cent am nañ ko. puis première phase moo nekkoon bu ñu dañ naa première phase bi daal mooy nañ concentré ci minaare yi ah, léegi nag minaare yi wàccee nañ la fa nekkoon reprendre ko jusqu'à léegi à quatre vingt à soixante dix pour cent am nañ ko euh, bu ñu paree ci minaare nag deuxième phase bi ñuy jublu mooy phase extérieure bi façade extérieure la ñuy reprendre buñ paree nag doog a mujjee par intérieur bi. waaw ginnaaw soora bi nag bu fee nag jëmmi jumaa ji ci boppam. daanaka boo xoolee surface construite bi nekk na environ deux mille euh, deux mille mètres xoolee ci xayma jumaa ji intérieur yi nekk na intérieur bi nekk na environ mille cinq cent mètres carrés. à savoir aire de prière bi nekk na mille trois cent ah demi demi mihrab bi ak bibliothèque bi ak euh, yi nekk ci biir ak euh, recueil recueillement imam bi environ ça fait deux cent mètres carrés. véranda yi nag buñ boole ñetti ñetti véranda yi. ça fait environ cinq cent mètres carrés bu ñu boolee mille trois cent yi ak deux cent yi daanaka jumaa ji day mat deux mille te boo xoolee surface yooyu ñu joxe daanaka boo xoolee intérieur bi rek mën naa jël deux mille mètres carrés deux mille personnes waaw véranda yi mën naa jël au moins cinq cent personnes ci xayma jumaa ji daal bu noppee mën naa jël minimum deux mille deux mille cinq cent personnes waaw boo xoolee sooro yi ñeenti sooro yi ñaari ci kanam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 كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله lii si plan yi la euh, boo xoolee nii certes te chantier boo gis loolu dafa ànd ak moom y aura des modifications mais loolu ci euh, dossier dossier d'ouvrage exécuté yi si lay ñëw si DO e bi ci lay ñëw ëllëg ndaxte yenn saa yi par exemple boo xoolee fii def nañ fii deux tranches euh, kii poteaux yoo xam ne dafa dafa ñëw ba fii boo xoolee euh, porte bi nekk foon euh, kii au début ñun ñoo ko si yokkaat parce que maanaam pour tenir compte de de la sécurité incendie am na yeneen yoo xam ne nii par exemple rampe rampe d'accès kii handicapé yi boobu tamit fi mu nii euh, modification yi si amaat ak yooyu yëpp fi mu nii euh, nañ nañ ko nañ ko nekk dolliwaat nekk suñu euh, au bi join de dilatation bi tamit niñ ko concevoir nekkul au début ni mu nekkoon yooyu yëpp maanaam si ci ci ci DO bi moom lay moom lay feeñaat ëllëg. wante loolu moom nekkul loo xam ne nii nañ koy kii te bu en matière de de solidité Euh, système bi niñ ko liggéeyee euh, maanaam euh, franchement lu ko gën a dëgër si fi mu toll nii moom dina jafe loolu ndaxte boo xoolee maanaam rien que jumaa ji en chiffre encore c'est 138 poteaux parce que parce que système poteau poutre la poutres yi en arc la hmm? euh, donc euh, te fondation yi tamit fi mu nii dañu limité woon contrainte euh, sol bi à deux barres même deux barres yi jaar nañ koy cent cinq sécurité presque vingt cinq pour cent pour pour pour am marge carrément lan te par exemple boo jëlee euh, minaret yi euh, on a été jusqu'à euh, presque plus de dix pour cent hauteur kii hauteur kii minaret yi e du coup on ñu ngi ko encastré à cinq mètres environ avec ay rajo yoo xam ne nii six mètres par six mètres la avec épaisseur quarante centimètres de béton. boo xoolee rek loolu loolu boo ko seetee dafay mel ni maanaam euh, euh, li si li si li si brique si jumaa ji tuuti lay nekk après presque remplissage rek la loolu nag euh, wax dëgg yàlla te béton yi on on l'a bien contrôlé xool ba xam kii dosage yeeg yooyu yëpp Euh, ça c'est bien euh, qui euh, ça c'est bien fait liggéey bi nag am nañ ci taw feex ndax diirab sëñ bii duñu ko saytuloo def nañ daje yu bari def waxtaan yu bari dugg dugg dugg dugg yu bari ngir bëggoon lii rek ndax mbir dana deme noo xam ne bu xasee am tuuti jafe-jafe ba mel ne dafa waroon a dox ba noppi doxatul mbaa doxin wa yeex ba tax ki koy def sax li muy bëgg bëgg jumaa ji dafa mujjoon jaaxle ndax lay jaaxle gi mooy ku dikk rek ne lii de awut yoon lii de buñ ko defoon lii ñu defoon nangam nangam nangam kon loola taxoon na liggéey bi taxaw mën naa am nag loolu la ci yàlla tuddoon ñu bàyyi xel na it yéex na yéexut ndax jumaa yu bari kat boo ko boo ko kiiyee tam bokk yu mel nii man a def na ab diir bu xaw a bu xaw a yàgg yéene yi nag moo bari ba kenn ku ne jàpp ne dañoo war a tëb rek dal ne bisimilah rek daan ne nañ ko nañ ko nañ ko ubbi xëy na loolu yéene yéene toll waaye distance bi mu jël wax dëgg yàlla maanaam kii wut daal yéexul te cër yi moom sëñ Tuubaa noppi na ci benn cër ëppantewul rawatina cërëb magi mag kon nag ku am taw feexi nag di ko ca xëyal mbaa nga di ko ca gontal war nga doole sant sëñ Tuubaa baax tax ne moo la ca tànn te day liggéey bu xaw a jafe ma wax ci tuuti rek ki mm, ñu bari xam nañ ko waaye répété waat ko mooy jëmmi sëñ fal day wax ne bi mu nekkee kër mam moo jaar ci ndigalal sëñ Tuubaa mu andi ko fa bañ seqee lañu war a seq jëm jàng ba mu yewi ko bi mu demee ba yàlla man loo ko ko dane man de sama sëriñ bii di sama waajur xool naa xool lu ma ko war a defal fayee ko ko ba xolam sedd kaw ma ko lu dul jàkka daan kon nag donc bu ne sañ naa defal toolu àllarbaam ab sëriñam kon loolu moo fa indi jumaa ji man te la ma ci xam def ko defeen wu jekk nag wu ànd ak yéene wu ànd ak taxawaay ànd ak kon booba sëñ Tuubaa moo koy defal Maam Moor Jaara ba loole wéyee ñu toog ab diir bu xaw a yàgg tuuti sëñ Mourou bu sa jàng Mourou moo sax moom du saa falil waaw ñu ne dane xool naa lu mu war defal sëñ Fallu ba xolam gën a sedd waaye gisuma lu ci jiitu jumaay maam Mor Jaara ji moom sëñ Muudu ñëw yeesa naat ko ba mel ni kawe njort biñ demee nag ba si Abdullahi mii yàlla moom mu ñëw di maam Mor Jaara fekkoon na fi yéene yu baree bare waaye moom lay cëram nag mu boole nag la ca sëñ Tuubaa yéene la ca maam Mor Jaara la ca sëñ Fallu defoon la ca sëñ Muudu defoon mu ànd ak bokkam nag ne nag fiñ toll ci jamono damaa bëgg ñu méngale kook fiñ toll ñu bàyyi xel ne man ci liñ ma wax daa am yoo xam ne boo ko fekkul da nga wax ci liñ la wax sëñ Fall dañoo wax ne bi liggéeyu jumaa ji noppee dane dafa mel ne ku jàkkaarloog sëñ bi man nañ ne sa jàkkaarloo nañ ne ko mbàkki fii lañ toll tollale la fi suñ ko weesoo weesale la ko أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين kon sëñ Abdoulaye bi mu gisee ne fii la jamono toll kon warees na ko tollale fi jamono toll moom mu woote nag kër gi ñu bokkal Maam Mor Jaara doom yi sët yi taalibe yi wëllëre yi ne ñëw leen liggéey baa ngi nii daan na man nag bii moo ma ñor lu ma waay jox lu ma yor def ci lu ma jox ma defal la ci boobu yàggul suñu Ousmane yaa ngi seede ne day wax ne lu ma yor ba koo denc denc ko ci néegam yàlla bii maanaam moo ma gënal denc ko feneen keroog ak léegi luñ ko mën a jox lu mu mën a doon sëñ Cheikh Gawane mii lay woo ñëw mu ne ko demal yóbbu sëñ Cheikh ñëpp mën nañoo seede ne keroog ak léegi lépp lu dugg ci noppam ci ne lii dañ koo soxla muy matériel bu war a dem maçon bi wax na ko léegi yéen ñëpp wax ngeen ko ñun ñëpp ko mën a seede boo ko fekkoon muy muy signé ab facture sax mën na koo batale dem ci liggéey boobee dara mu mënu cee jàdd ñun dem nañ ba xam ne bëggut sax liggéey bi dugg ci biir liggéeyam parce que ab commerçant it yu bari dañuy defee léeg jox ab commerçant xaalis mu def ko ci liggéeyam di ca liggéey di ci mii nag dañuy seede bu ca yokkut du ca dugal dara ngir wut ca dara xaw ma compte fu ko ko daawee compte boppam la ko ubbil lu ko sëñ bi jox mu dem def ca loolu nag a waral ay minute buñ ko soxlaa mu ne niñ ko bëggee mi ngi nii waaw ci biir loolu it sëñ bi bi mu ne lu ma am def ci lu ma waaye jox ma defal la ci bam ko tàmbali ba fii ñu toog nii man dama wax toujours ne buñ buñ ko wutal leneen ndax ku ko wutal leneen yaa ngi koy tooñ muy ñun muy keneen ñun defuñu ci keneen defu ci xanaa li nga yor muy addee sëñ Tuubaa ci Maam Mor Jaara nga dem jox ko ko muy lu ko leewoon doom mu boole la mu yor def ci ñu bàyyi xel ñu bëree bëri nag bàyyi leen xel ne nag huit cent quatre-vingt-dix millions nangam nangam waaw yoo xam ne def na ko ci ku ne nag xool lañ koy def ba xam suñ ko tàbbalee ci loolu ndax loolu dana doxal liggéey bi wala déet loolu foofu laa ca mën a yem. yàlla dogal na it at mu ne dana jabo bana boo jabootu borom saam gépp lam ca njëkk a def mooy dafa def tournée kenn ku ne mu dem ci yoon bi dama bëgg nu ànd liggéeyal borom saam jumaa jee kenn ku ne mu gën a ji maslaa ak yow ñaanal la woote waat ci kër ga joxe ndigal li kaana fu ci waay yam rek yaa fa yemale bopp at mu ne mu ne maa ngi yeesalaat ndigal li kenn ku ne ànd ak nga tubaab sëñ booleel di ko jox ko addiye jam la santoon waaye mu mën nu ca mu mën nu ca lool nag ñun daf nuy xool loo ñii di jëwrinam ñii yoral ko ab liggéeyam mu yor ab xaalisam di ko ci def te néewul sonn naa néewul tële naa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 فهو في عيشة راضية في جنة عالية خطوفها دانية buñ delloo ci kàddoom def na ci loo xam ne képp ku ñëw xam ne liggéey bi yàlla la liggéey bi Sëñ Tuubaa la nga def ci it buñ ko méngee rek lim ci def la mel ne kook soo tànk ci ci géej luy nuru kon liggéey bi ab liggéeyam la mooy ñëpp war ko bàyyi xel ndax liggéey bi yàlla la te li gën jafe ci te ñun ñu soxla ko muy imaan ngëm yàlla sunu borom da ko takk ci def jàkka taxawu jàkka liggéey ko yeesal ko seeral na képp ku def loolu bu jàkka seeral na la iman innama yaamuru masajidallahi man amana billah ba ba fam yem moo tax nit ñu baax boroom xam-xam yu baax ya wax ne ida raaytum rajul ma yaamuru almasjida fa xassinu bi xiswan képp ku ngeen gis muy muy muy def yitteem ci jàkka ak jumaa da rafet njort ci moom xam ne la nit ku baax la te itam day day day jariñ nit ki yonent bi am na ñett yu mu waxoon ne nit ki bu faatoo rek jëfam yëpp day dog ba mu des ñett ñett yi rek ñoo ko ce jariñ ida maata rajulu inqataa anhu amaluhu illa min thalatha ba mu ca jëkk jiital mooy sadaqatin jaariya te lu mel ne jumaa yi ci la bokk loo xam danga fo liggéey mooy liggéey bi yàlla mu mu mu desal la fi waaye nag eh, ne mi ngi sant yàlla ci liggéeyu Mamour Diarra bi ndax warfu zaman ak warful makaan lu ci ne day dolli day dolli jëf ma maanaam jëf jamono ba nga ko jëfee ak barab ba nga ko jëfee dana doy dana dolli tuyaaba ja liggéeyal Mamour Diarra nag jàkk yëpp liggéeyal ko tuyaaba ju rëy la waaye jumaay Mamour Diarra nag da cee raw sëñ Tuba def cee dafa waxoon ne ku ku liggéeyal ci sama ngërëm danga am yàlla dana la fay yonent bi fay la ma fay la mu fay la moom ndax am na pay te ndigalam am na ci ndax sëñ Fallou moo ko moo ko liggéeyoon digle ko am noppee ci jumaa ju mag ji nañ ko waxee léegi la ne ko am lu la rawoon ci ji dab dabi ko dabu ko ci jële liggéeyal ko ko jumaa yi sëñ Fallou ji itam moom la sëriñ bi di yeesalaat moom la yeesal ne ko sëñ Baara waxee léegi loolu itam lu lu lu maanaam lu sax la ci lislaam Sayyidina Uthman ibnu Affan bi mu nekkee xalifa jàkka yonent ba mu ko bëggee yeesal dafa am ñoo xam ne amoon amuñu woon gis-gis boobu dañ koo bàyyi ne ko yonente bi bàyyee woon mu ne leen man kat dégg naa yonente bi wax ne man bana lillahi masjidan bana allahu lahu mithlahu bana allahu lahu baytan fil jannati mithla képp ku tabaxal yàlla juma defaraat ko yeesal ko ko daan la defal na la tabaxal kër ci aljanna kon yooyu itam loolu wana na ne kon liggéey bi muy liggéeyaat juma ji moom sëñ Abdoulahi te waxal na boppam am na bis buñ jagleeloon sëñ Fallou ci Mbàkke waa kër Maam Mor Jaare bind benn kaamil kaamil boo xam ne dañ ko bëggoon a terale waa kër sëñ Fallou yi bu ñëwee euh, bañ demee ca moom di bokk na ci lam lay waxtaan ak ñoom ci sëñ Fallou na leen jumaa ji ngërëmul sëñ Fallou la ciy sàkku defaraat gi ma koy defaraat teg na ca wax ne bu bu ñëwoon ba gis ko tey dana na ma jërëjëf sëñ Fallou dana na ma jërëjëf <laughs> loolu waxal na ko boppam ma dégg kon nag kon nag loolu loolu na ko ñëpp xam xam ne liggéeyub sëñ Tuubaa la mm-hmm. lii sëñ sëñ Ousmane wax léegi nga xam ne dafa bokk ci comité de pilotage bi wax ne jafe-jafe yu bari sëñ bi jànkonte na ci ak moom loolu moom jig na liggéey bu ñuy liggéey ci yoon wi jumaay Tuubaa ju mag ji sëñ Tuubaa moo ko jëkk a tàmbalil boppam coono bu ne daj na ko ci ak i gàllankoor fii ñu ko def sax nekku fi woon ci penkoom lañ woon a tàmbali jumaa ji jafe-jafe àggoon na ci ba mu woo sëñ Moodu Mustafaa ne ko sama loxo damm na ci na ci sa loxo damm kon jafe-jafe ci jumaa moom lu fi lu fi yàggal te lu jig ju lu jig bi yoon wi la li mu waxit ne xelam a ngi dal kon alhamdulilah mel na ne jafe-jafe yi na koy misaal sax banaan bu tëddee dana nelaw loolu waxee ne wolof la mooy xelam dal xelam dal na rek kon daal liggéeyu ma Diarra Mamour Diarra cheikhul islam la Mamour Diarra kilifa diine la moo tax ba mu fi jógee ku ñu wax dun noonu yoonus lii doon koo xam ne doon morit sax ta mag la at mi fi sëñ Tuubaa jógee la fi jógee di borom xam-xam lool ba Mamor Jaar na lay def ne diine ci boppam moo moo faatu moo faddu allahu akbaru gaaba diin wal waraw teg ce na yaana yan qad naa hada al imama faqad naayta cheykhan bihi l islaamu yartafiu yow mi ko tàggee tàggee nga jëmm joo xam ne l'islaam yëkkati ko woon na ci moom kon ku toll noonu nag buñ koy defaral jàkka ak jumaa te lii wan lislaam dong la fa nekk woon moo tax ba mu fi jógee sëñ Tuubaa ne bu dul woon alquran ak sunna ak jëriñ bindee fi ma noppi ci àdduna tey ngir xam na ne wéttalu xolam moo doon Maam Mor ngir lan ngir la nekkoon rek ca la ne muy liggéeyal diine liggéeyal lislaam kon noo noo ngi ci som ñëpp daal di ñaan ku ci def rek sunu borom fayee la lu kawe sa sa ndax dañoo jàpp ni ngëneel ak mbaax suñu borom ña jiitu rek la ko jagleel ndax dañoo bëggul wala ñu mënul am ca la mag ña daa am aha yàlla mi ko daa maye mi ngi fi te du fi jóg képp ku ko sàkku mu ci bëll ci ba mu doy sëkk rawatina ci tool bu barkeel bu mel na tool bii te it dafa war te jaadu ngir mbàkke bawal am jumaa ju ñuy seetaan ngir mësuñoo ñee kenn ci diine te ña ñuy seen ñépp fa lañu fekk baax lu baax du baax ba weesu baax waaye fa ñu jëm lu baax du fa doy nañu góor góorlu bu baax ngir liggéey bi baax ndax bu baaxee suñu lépp baax yàlla na ko suñu boroom sottal yàggal fi sëriñ Abdu yàllaay buur ba mu àggali naal bi coleek te ànd ko ak taalibe yépp ànd ko ak jullit yépp mbokk yi jëf jël waaw ko jëfeeñ hmm. ku sooba yàlla dootoon na bu ba faw ku ci def sa ku ci def sa sa sa sa sa sa sa alalit mm-hmm. dootoo ñàkk dootoo ñàkk dootoo ko ñàkk mukk ci àddina mm-hmm. waaw loolu day mën naa ko garanti walilmuminina walmuminat wala tazid alzalimina illa tabara allah allahu akbar boo leen bëggee am mbooleem vidéo yi bàyyeekoo fii ci Istikhama TV da ngeen di bés fu ñu bind abonné bu leen fàttee bés fu ñu def cloche bi foo leen mën ne ci àdduna bi ngir ngeen mën am mboolem vidéo yi fi bàyyikoo